ñëw na parce que ay manifestation moo ko fi indi woon mais Pamata bu naree duggaat ci euh, fële ca euh, lu mu tudd ci àllam boobu. di wéy ci rébellion boobu xanaa tey loolu bon nouvelle la dañ ko war a faciliter pour mu dellu <laughs> mais doo ko bàyyi fii ci ci Dakar en fait. mais Pamata dañ ko war a jàpp kay. Pamata waaw ah, bu buñ ko waaw c'est ça aussi dañ ko war a jàpp dafa am ay. hérésie yu bëri yoo xamante ne yaa ngi koy nemmeeku. si seen ay communication si seen wax jëm ci loolu. xam nga dañ fi jàppoon benn waay. ne Ousmane Kabiling jaata doom xaru tabaski ba. waaw kañ tabaski daaw. ba ren yàlla du nit. waaw waay ñu ne kenn kenn waxatu ci ay mbirum de moom. ñu ne waa ji dafa ñëw dafa am. ñeneen ñu ma ñu ma jaaxal mooy ñi mu. àndaloon tërëj <laughs> voilà ñoon laa lay wax. ne dafa am ñeneen ñu mu àndaloon. waa ji Casamance la jógee cocktail Molotov la defaroon pour ñëw taal ci si manifestation bi mhm. te mu am ay waroo yu bëri ci li nga xamante ne kañ lañu ñu namoon amal manifestation bi ak moom kañ la ñëw Ndakaaru mhm. Pamatar. Mm-hmm. muy doon yu waroo ñu ne am na ñeneen ñu mu àndaloon dañu rëcc ñu ngi leen di seet. Mm-hmm. daaw ba ren ñu ngi leen di wër. tabaski daaw la woon de ndax dañ ne woon dafa doon ñëw Dakar pour jënd si ay xaar Kaolack la ko doon jëndee mais dafa ñëwoon Dakar pour seet si frère am xaalis bu muy jël pour dellu. Mm-hmm. dégguñu loolu ba léegi. ñu ne manifestation yi passé ñu ne ñu woon dañ rax dañ ñu ñu ne ñoo xamante ne ñoo jógee Ziguinchor waa ju dëkk fii ci Liberté 4 mhm. juddoo fi màggee fi yaroo fi ñu peindre ko comme koo xamante ne il fait partie de la rébellion Casamance la jógee mhm. fu ñu mujjanteeg moom trois jours après ñu bàyyi ko mu ñibbi dem këram mooy waa ju Barthélémy Dias jàppoon bu nu këram voilà gis nga yooyu yëpp nag bokkut ak kooku ah, kii fii la fii hmm, d'accord yooyu yëpp ci suñu ginnaaw non kooku bokkoon na si ñi ñu jàppoon ci Barthélémy am na am na am na jàppoon ne kii UCG lay liggéey la mais Pape Matar gis nga yooyu yëpp ci ay communication yoo xam ne ay autorité ñoo koy def mhm. léegi yow lan nga ci jublu panique bi léegi si c'est du côté de la population wala du côté des autorités nañ ñu mhm. leeral mhm. parce que ñoom ñoom ñoo détenir ñoom ñoo war a aar kaaraange askanu Sénégal cinq minutes moo des ñu dem fële ca bitim réew Euh, lan moo ciy problème bi Pamata. d' accord problème bi euh, li ñu war a leeral mooy suñu taxawaayu état du Sénégal parce que mi ngi fële ca bitim réew jamono ji moom euh, ministère bi yore wàllum bitim réew ay Aïssata Tall Sall jàkkaarloo nag ay parlementaires européens mais lu mu wax ñu weddi ko Moustapha Diop moom yaakaar na ni que li xew Sénégal Sénégal la yam que alors que ñi mu jàkkaarloo di ay parlementaires am na nañu ay informations yoo xamante ni dafay waroo ak moom li mu doon indi ci communication. mais euh, Pape ma nga baal ma mais ay Aïssata dama yaakaar dañ ne ko tubaab yi daa neex <laughs> wax ji dafa neex loo mu yaakaar ne lu mu lu mu wax dina jàll. lu wax mu dem waaw. képp képp gis nga keroog dama koy seetaan France 24 tubaab ji neex lool. Uh-huh. mais tubaab bi mu jàkkaar lool di wax kooku dafa fàtte ne moom dafa nàmp tubaab. <laughs> te tubaab bi mu jàkkaar lool di wax moo ko gën a xam ne lii muy wax amul. tey jii nii sa vidéo bu ngay wax man je l'ai sur mon téléphone. <laughs> ñëw wax ba pare benn cek xawma ma. Euh, taxaw ne ko li nga wax yëpp d' ma ceeg yow <laughs> président Macky Sall mënul nekk candidat en deux mille vingt quatre. Mhm. et et Sénégal ça nous inquiète ce qui se passe là-bas. Mhm. am keneen ku ko ni seen dialogue bi ngeen doon woote sax ngeen ni. opposition bi opposition bi mm. représentative newu fa. exactement cest à gis nga tey ah, man vraiment. <laughs> doo comprendre c'est-à-dire que Pape dañuy dund ci benn àdduna boo xam ne. Mhm. ce qui dans les studios de Walfadjri là. su ko waa Maison Blanche bëggee dañ koy seetaan. ce qui se passe euh, nuñ ko foo mënti nekk ci ah, foo mënti nekk ci àdduna bi li xew Sénégal les vidéos la France 24 wane euh, nuñ koy waxee sax euh, opinion libre wane ko. comment ça s'appelle TV5 feneen ak feneen ak feneen la conférence de presse de la police. Mm-hmm. les réponses de Sénégalais le mémorandum la waa PASTEF def bu yàggul. Mm-hmm. mais loolu lépp boo mm-hmm. demee dans toutes les chancelleries da nga ko fay fekk. finalement dangay dem la seule chose que tu peux leur vendre. c'est hmm. la vérité. oui c'est la vérité. Hmm. tubaab mënoo koo gëmloo tubaab mënoo ñëw toog un parlementaire tubaab nga ne ko man maa tudd Aïssata Tall Sall hmm. avocate la droit laa jàng xam naa ko. il y a de deux ans wala trois ans j'avais peut-être euh, cinq ans j'avais juré que ne président Macky Sall mënul nekk candidat parce que constitution au Sénégal moo ko interdit. tey je je te regarde les yeux dans les yeux je le contraire. Ah. tubaab du ko mais loolu rek du leneen jërul mm-hmm. sonal suñ bopp mm-hmm. ñun ñoo ci ne di werante mais tubaab duñ werante ci ñooñ ku weddi nga laaj waa ji waxoon bërki démb la ancien président parlement euh, euh, assemblée sax xawma sénat France mm-hmm. waxoon ne Macron war naa mën a présenté mandat mais génn na ci bu gaaw bu gaaw na ci génn parce que ñooñu caaxaanuñu caaxaanuñu te Macron n'a jamais dit à quelqu'un que ne je jure j'ai écrit dans mon livre que je ne pas me présenter en, en, pour un troisième mandat il ne l'a jamais dit mais il n'ose pas Absolument. il n'ose pas mm-hmm. présenter une candidature au conseil constitutionnel en France mm-hmm. kon Macron bindul la France au cœur Macron bindul yooyu mm-hmm. le Sénégal au cœur moo fi am ah. non non non xam nga Pa Matar Aïssata soo ko xoolee keroog sur euh, France 24 man posture rek moo dina Aïssata Tall soo ko gisoon dafa amoon prestance mhm. amoon euh, benn charme bu mu doon dégagé mais keroog manque de sérénité totale nga gisoon ci ay Aïssata Tall Sall il mhm. bougeait à tout va pour expliquer elle était obligée am benn hargne bu muy wax te ki lay posé question mi ngi dal def ndànk di la wax dëgg soo ci nekkee di ci wax mhm. t'as besoin am benn arñi bi benn kii bi di ko waxee waxal ñu dégg la en plus nga ne ministre des affaires étrangères mhm. yow dara warulaa ëmp tey tu jettes même le discrédit sur la police ne légitime défense légitime défense ak ku yoroon xeer mhm. tey police yi seen bopp ñoo war a xoolaat sax euh, euh, décision boobu jógee ci ministre des affaires étrangères. Mm-hmm. de surcroît te awo police mosul tudd lool. Ah. police seen seen mosuñu wax ne les policiers ah astafurlah su amee ngeen wax ko. Mm-hmm. déglu naa seen conférence de presse boobu defe jour bi j'étais avec toi Pape Makhtar. gisuma fenn fu police waxee ne. moom moo dugal loolu ci débat bi. Mm-hmm. ñoom kay ñu yor armes sax mosuñu leen euh, présenter comme ay policiers. voilà ci benn village planétaire lii xew Sénégal fii noonu ne ko waa États-Unis ak waa Espagne ak waa Ukraine mën a yëgee ci temps boo xamante ni temps bu record la. waaw mais parce que euh, réew ñu nekk ñu nekk bitim réew. Mhm. am nañ fa ay ambassade te ambassade yooyu presque chaque jour. dañuy def ay bulletins de renseignement. yoo xam ne dañ koy jotale directement seen waa réew. seen président réew. Mhm. parce que ambassade bi aussi. n'oublie pas que ambassade c'est un territoire boo xam ne qui se trouve à l'intérieur territoire autonome bu nekk si biir territoire. tey jii buñ la dàqoon nga daw ba dugg ba kenn du la jël ambassade de France boo fa demee. Mhm. xamal ne France moo nekk foofu. territoire français la territoire français la bu nekk biir Sénégal. Mhm. noonu la dem dans toutes les ambassades ñooñu dañuy am seen bulletin de renseignement yi nga xam ne chaque jour ñu def ko. Mhm. mais la la preuve c'est bu dara xewee. da gis ambassade bi même bu fekkee ne Sénégal day nëbb ampleur dégâts yi wala ampleur manifestation yi Euh, seen représentation diplomatique fii day génne ay communiqué wo woo ay numéro téléphone am. Mhm. ses ressortissants ne leen suba bu leen génn. Mhm. parce que am nañu ay renseignements yu leer que ne suba ku génn nañ la jàpp. y' a même pas longtemps y' a l' ambassade je crois d'un pays étranger là dafa envoyé ses ressortissants ay ay communiqué ne leen attention képp koo xam ne si ñun nga bokk. moytul di dox guddi à partir de certaines heures. Mhm. parce que police sénégalaise ñu ra di wër ay ay donc ku si génn bu ñu la jàppee nag. Euh, ambassade bi sa problème la ambassade du ko régal donc c'est vrai bi xam na luy xew ci biir Sénégal. Mhm. yoo xam ne sax parfois yow da yaakaar ne mën nga nekk ministre de l'intérieur peut-être ministre de l'intérieur très bien renseigné. mais nag euh, les ambassadeurs aussi sont très bien renseignés parce que dañu am nit ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey ci biir ambassade bi. d'accord d'accord en tout cas a